waaw naa leen trop parce que ñu jàngale EFD depuis temps booy yàlla may ñëw ba tey yàlla baax a baax. ban jàngat ngay si marché bi. marché bi métti woon nañu trop sax trop trop trop mais comme que yàlla may nañu ndam dañ koy sant bu baax a baax te des na retour retour bi dañu koy rafetlu. retour bi surtout la ban waxtaan ngeen di def seen biir. waxtaan comme waxtaan bi marché moom mënul dépassé marché waxtaan tranquille après ñu ñëwee ñu joxoon gëddëm. joué ko normal daa ma gën a xam parce que ñu wane lépp lu mu mën incha allah. merci beaucoup. état bi am tey ngeen gañ Guinée à domicile 1-0. waaw gagné nañ ko à domicile 1-0 match bi métti woon na trop mais consigne lañ doon joué dañ doon bañ a jël risque. encaissé ñu dem ba ko mu gën a métti si ñun. Hmm. Euh, yàlla may nañu ndam si ñu jéem a préparé mais la nga jàpp ne moo di xaar match tour bi. waaw ah, ñun xam nañ lu ñuy xaar ñun xam nañ lu ñuy xaar parce que dañoo def ay sacrifice yu bëri. boo hmm. xoolee buñ tolloon fii nii heure bii. Hmm. ay 15 jours dañuy dem ay. 14 mai bii dañoo toog ñu ñëpp waxtaan mu ne dafa doy quoi dafa doy. parce ngi bëgg a yàgg. Mhm. mais si histoire Sénégal euh, mos mais dem à l'extérieur Guinée éliminé ko est que tamit yaa ngi ci bàyyi xel. waaw loolu yëpp am na loolu yëpp am na mais mën nañ ko dóor fii 1 dem fee dóor. ah bien sûr war na nekk de. quoi. ren dina am mais jël ngeen benn budget ngeen joxe dugal ngeen war def match retour bi doon match bu yomb parce que gis nañu chaque fois Guinée day fay faral di bloquer Sénégal. mais ren du am. ren du am lan moo fan nga teg loolu. non dañ ko gëm parce que liggéey bi dañ ko teg ci yoon. déjà match bi vous avez eu du mal ngeen dugg ci bu baax a baax. lan moo waraloon loolu début match bi on vous a pas senti durant le début match. waaw parce que équipe équipe boo xam ne dina équipe bu mag la. doo mm-hmm. ñëw rek nga commencé fóot ci ñoom da ngay taxaw nga xool lu ñuy andi. Mm-hmm. loolu la ñuy def après lu ñu xam ne mënuñu antan ñu yegg seen kaw yàlla may ñu ndam loolu la ñuy xaaraat encore loolu la ñuy defaat. merci beaucoup merci.